kolos kolos sar benn wàll ci linjiil di bataaxal bi yàlla may pool mu bind ko waa kolos man pool ndawul kirist yeesu ci coobareek yàlla man ak timote suñu mbokk noo leen di bind yéen gaay yàlla yu sell yi dëkk kolos te di ay mbokk ci gëm kirist ne leen yàlla suñu baay may yiw ak jàmm du noppee sant yàlla bàyyi suñu boroom yeesu kirist saa ñu leen di ñaanal ndaxte yëg nañu seen ngëm ci kirist yeesu ak seen mbëggeel ci gaay yàlla yépp ngëm googu ak mbëggeel googu nu ngi sosoo ci yaakaaru ëllëg ji cër bi leen yàlla dencal ca asamaan mas ngeen dégg yaakaar jooju ci kàddu dëgg gi di xabaar bu baax bi ni xabaar bu baax bi wàcc ci yéen noonu lay wàcc ci àddina sépp di meññ te di law te noonu lay doxale ci yéen di dale ci bés bi ngeen déggee xabaaru yiwu yàlla wi te xam dëggam gi mu ëmb moo ngeen jàng ci epafaraas mi sunu nawle ci liggéey bi te nu sopp ko di jawriñu kirist bu takku ngir seen njariñ te moo nu yëgalit mbëggeel gi xelu yàlla mi sol ci yéen looloo tax ci suñu wàllu bopp ba nu ko yëgee ba tey jógunu ci di leen ñaanal nu ngi ñaan yàlla ngeen xam bu baax coobareem ci xel mu mat ak ràññee gu aju ci doole xelam noonu dingeen dund dund gu dëppook seen bokk ci borom bi ba neex ko ci fànn gu nekk di def bépp jëf bu baax te yokk seen xam-xam ci yàlla te yàlla dina leen dooleel ak bépp doole mu màngoo ak kàttanu ndamam ngir ngeen mën a tegoo coono te muñ ba fa muñ di yem dingeen gërëm yàlla baay bi ànd ci ak mbég moom mi leen jagleel ngeen bokk ci cër bi mu dencal gaayam yu sel yi ci leer gi yàlla musal nañu ci doole lëndëm gi yóbbu nu ci nguuru doomam ji mu bëgg moom mi nu jot maanaam baal nu sunuy bàkkaar doom jooju moo di melokaanu yàlla ji kenn gisul mooy taaw bi ki gën a màgg lépp luy mbindeef ndaxte ci moom la yàlla sàkke lépp lu nekk ci asamaan ak suuf li ñuy gis ak li ñu mënul a gis muy buur njiit kilifa mbaa borom sañ lépp lu ñu sàkk ci moom lañu ko jaarale ci moom lañu ko jëme laata dara di am fekkan na moom mu nekk te lépp a ngi jàppoo ci moom mooy bopp biilif jëmm ji di mbooloom ñi ko gëm ndaxte moom mooy njaalbeen gi di taaw bi maanaam ki jëkk a dekki ngir muy kilifa ci bépp fànn ndaxte soob na yàlla mu dëkkal matam gépp ci moom te jaar ci moom jubale lépp ak boppam mu ci kaw asamaan yi mbaa ci suuf ba mu wàccee jàmm jaarale ko ci deret ji tuuru bi doom ji deeyee ca bant ba te yéen ñu sore woon yàlla te doon ay noonam ci seen xel ak seen jëf yu bon léegi nag yàlla jubale na leen ak boppam jaare ko ci deewu kirist ci yaramu nitam ngir taxawal leen ca kanamam ngeen sell te ñàkk sikk ak i ngàññ loolu nag na fekk ngeen wéy ci ngëm samp ci ba dëgër ci tey seentu cër bi leen xabaar bu baax bi jox te xabaar bu baax boobu ngeen dégg te ñu yëgal waa àddina sépp man Pool moom lay yégle léegi nag maa ngi am bànneex ci coono yi may daj ngir seen njariñ te li des sax ci fitnay Kirist noonu laa koy àggalee ngir njariñu mbooloom ñi gëm di jëmam jawriñu mbooloo moomu laa ndaxte yàlla sas na ma ngir yéen may yégle fu nekk kàddoom maanaam ma yégle kumpa gi nëbbu woon ay jamonoy jamono waaye léegi yàlla xamal na ko ay gaayam ci xeeti àddina sépp ñoom nag la yàlla bëgg a xamal ni ndamu kumpa googu màgge maanaam kirist ngi dëkk ci yéen di yaakaar ju wér ci ndamu ëllëg moom kirist lañuy yëgale di artu di jàngal ku nekk ànd ak xel mu mat ngir jébbal yàlla ku nekk ni ku mat ci kirist ci loolu laay jëmale sama liggéey di bëree doole kirist ji yëngu ci man ak kàttan kolosaan ñaar bëgg naa nag ngeen xam bu metti bi may bëre ngir yéen ngir waa lawdise ak ñépp ni ma a teg bët damay def sama kem kàttan ngir ngeen am fit te nekk benn ci mbëggeel ngir dajal noonu xam-xam bu mat ba xam kumpaag yàlla di kirist ci moom lañu denc lépp lu ñuy sàkku ci xel ak ci xam-xam maa ngi wax lii ngir kenn bañ leen a nax ci ay wax yu neex jëmm ji néwul waaye sama xel a ngi ci yéen di bég ci seen doxaliin ak ngëm gu dëgër gi am ci kon nag ni ngeen nangoo kirist yéesu ni borom bi dunde leen noonu ci moom sax leen ci moom di màgg ci moom tey gën a dëgër ci ngëm gi ñu leen jàngal ba seen xol di baawaan ci gërëm yàlla moytu leen ba kenn bañ leen a fàbbi ci ay xam yi nit yuy naxi neen xam-xam yu mel noonu nu ngi soqi ko ci aada yu nit tëral ci aaday àddina waaye soqi kowul ci kirist ndaxte ci kirist maanaam ci yaram yaramu nitam la matug yàlla gépp dëkk te mat ngeen ci moom mi buuru kilifa yépp ak boroom sañ-sañ yépp ndaxte seen ngëm ci moom xaraf ngeen xaraf bu loxool nit deful maanaam kirist sumil na leen dooley bàkkaar ji moomoon seen yaram loolu mooy xaraf bi kirist def bi ñu leen soobee ci ndox suulaale nañu leen ak moom tey it dekki ngeen ak moom ndaxte gëm ngeen ci doole yàlla ji ko dekkal ca néew ya te yéen ñi doon ndee fa kanam yàlla ndax seen mooy ak seen ñàkk xaraf yàlla dundaltal na leen ak kirist baal nu sunuy bàkkaar yépp mbind mi ñu daan tiiñal te daanu yey ndax ay sartam yàlla far na ko dindi ko daajaale ko ca bant ba kirist deeye futti na kilifa yi ak boroom sañ yi weer ci kanamu ñépp sëkkatal leen ni jaam ndax ndam la kirist jële ca bant ba kon nag buleen kenn teg tooñ ci lu jëm ci ay ñam mbaa naan ci mbagal mbaa xewu weer wu feeñ mbaa ci bisu noflaay loolu lépp nag takk ndeer la woon buy misaal li waroon a ñëw waaye lu dëggu li mi ngi ci kirist kuy bég ci toroxlu ci ngistal di jaamu ay malaaka bu leen ko may mu àtte leen kooku dafay jineer di seet lu koy feeñu bay tiitaroo xalaatam fekk xalaatu nit kese la te neen taqul ci kirist mi bopp bi yilif jëmm ji bopp bee tax ba jëmm jépp ji siddiit yi ak tenqo yi téye te taqale ko di màgg màgg gi ko yàlla di jox ndegam deyandoo ngeen ak kirist ba génn noonu ci aaday àddina lu tax ngeen di nangu ñu leen di teg ay sart yu mel nii bul fab bul ñam bul laal ni bu seen ak dund aju woon ci àddina si sart yooyu ñu ngi aju ci ndigali nit ñi ak seen njàngale yëf yi ñu tudd yépp des na leen jariñoo ba ñu jeex dëgg la seeni sart dañuy dénkaane pasteef ci jaamu yàlla di toroxlu ak di seen yaram waaye sart yooyu nag amuñu benn njariñ ngir nit ñi noot seen nafsu kolossaar ñett kon nag ndegam dekkeendoo ngeen ak kirist wut leen yëf ya nekk ca kaw fa kirist toog ca ndejeeru yàlla fonk leen yëf ya ca kaw te ngeen baña a faale yi ci suuf ndaxte dee ngeen te seen dund boole nañu ko ak kirist denc see yàlla te bis bu kirist mi seen dund feeñee yéen itam dingeen feeñ ak moom ci biir ndam kon nag li nekk ci yéen te bokk ci mbiri àddina jébbaleen ko deeg yu deme ni doxaanu yàqute sobe xemam bëgg-bëgg yu bon ak bëgge maanaam bokkaale yàlla yooyu xëcc merum yàlla yéen itam noonu ngeen daan doxale bu jëkk ba ngeen daan dunde noonu waaye léegi bàyyi leen yii yépp mer xadar kiñaan ak di génn ci seen gémmiñ sos ak wax ju ñaaw bàyyi leen di fen seeni moroom ndaxte summi ngeen jikko ju bon ji ngeen judduwaale moom ak ay jëfam te sol ngeen dund gu bees gi yàlla sàkk te di ko yeesal ba mu mel ni moom ngir ngeen man koo xam bu wér ci dund gu bees googu amul yawut ak ku dul yawut ku xaraf walla ku xaraful jaam walla gor ku jàngul ni barbaar yi ak ku yeewul ni warsit waaye kiristey lépp te dëkk ci ñépp kon nag ndegam yàlla tànn na leen sellal leen sopp leen soloo leen boog yërmande laabiir woyof lewet ak muñ mu muñalante leen di balante su amee kuy tawat moroomam balante leen ni leen borom bi baale ci kaw loolu lépp am leen mbëggeel giy jokkaale lépp ba mu mat na jàmm ji kirist di joxe noor seen xol ndaxte yàlla woo na leen ci loolu mel ni ay cër yu bokk benn yaram te gërëm leen yàlla na kàddu kirist dëkk ci yéen bay baawaan ngeen di jàngalante ak artonte ci seen biir ak xel mu mat sëkk di wooy ak a gërëm yàlla ak seen xol bépp ay taalifi sabuur ay kañ yàlla ak ay cant yu tukk ci xelum yàlla te lu ngeen mën a def muy ci wax mbaa ci jëf wéer leen ko ci turu borom bi yéesu jaare ci moom gërëm yàlla baay bi jigéen ku nekk nangul jëkkëram ndaxte looloo jëkk ci ñi bokk ci borom bi góor ñi na ku nekk bëgg jabaram te muñal ko xale yi déggal leen seeni waajur ci lépp ndaxte looloo rafet ci ñi bokk ci borom bi baay yi bu leen bunduxatal seeni doom ngir bañ a jeexal seen xol jaam yi nangu leen ci lépp seeni sang yi ci àddina buleen ko def rekk ci seen kanam di sàkku ngërëm waaye na nekk lu dëggu ci yéen ndax seen ragal borom bi lu ngeen mën a def na ci seen xol tàlli ngeen def ko ngir borom bi te du ngir nit xam ni borom bi dina fay seeni jëf mu di cër bi mu leen dencal kirist mooy boroom bi ngeen di liggéeyal waaye ku def lu bon borom bi dina la delloo sa jëf te du gënale kolos saar sang yi yor leen seeni jaam ci nu jub te aw yoon xam ni am ngeen yéen itam ab sang ca asamaan dëkk leen ci ñaan yàlla farlu ci boole ci ngëram te ngeen fasaale nu ci ñaan yi itam ngir yàlla ubbil nu bunt nu mën a xamle kàddoom di yégle kumpa gi di kirist muy kumpa gi waral ñu jëng ma ñaan leen ngir ma xamle ko ni mu ware jëfe leen ak xel ci seen diggante ak waa àddina te fu ngeen amee jot fexe leen ba jariñoo ko na seen wax jépp fees ak yiw te am xorom ngir ngeen xam nan ngeen wara tontoo ku nekk tisik sama mbokk mi ma sopp di jëwriñ bu takku ak sama nawle ci liggéeyu borom bi dina leen yégal lépp lu jëm ci samay mbir lii moo tax ma yebal ko ci yéen ngeen xam xabaar bi jóge ci nun te it mu dëfal seen xol onesim lay àndal suñu mbokk mu takku mi nu sopp te mu bokk ci yéen dinañu leen xamal lépp lu xew fii aristark mi nekk ak man ci kaso bi mu ngi leen di nuyu moom ak mark rakku barnabaas jot ngeen ay ndigal ci mbirum màrk bu ñëwee ci yéen teral leen ko yéesu mi ñuy dàkkantale yustus moom it mu ngi leen di nuyu ñoom rekk ñooy yawuut yi liggéeyandoo ak man ngir nguuru yàlla te ñoo feexal sama xol jaamu kirist epafras mi bokk ci yéen mu ngi leen di nuyu du jóg ci di leen ñaanal farlu ci ni kuy bëre ngir ngeen taxaw temm ci coobareek yàlla gépp ànd ak ngëm gu mat ak kóolute gu wóor maa ngi koy seedeel ni mi ngi sonn bu baax ngir yéen ngir waa lawdise ak waa yerapolis luk doktoor bi ñu sopp mu ngi leen di nuyu moom ak demaas nuyu leen nu mbokk yi nekk lawdise nuyu leen nu itam nim fa ak mbooloo ñi gëm miy daje ci këram bu ñu jàngee bataaxel bii ci yéen fexe leen ba ñu jàng ko it ci mbooloom ñi gëm mi nekk lawdise te yéen ngeen jàng bi ma yónnee waa lawdise te nee leen arkip farlul ci sas wi la borom bi sédde ba matal ko man pool maa leen di bind nuyoo bii ci sama loxo bopp fàttaliku leen ne dañu maa jëng ne yiwu borom bi ànd ak yéen